ñuy waajal 18 safar ñoo ngi ci kër soxna moomi kebe gi nekkee ci Touba. bisu Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne moo ni woon nañ ko ci santale yàlla li dale ci ginaar ba ci giléem day bis bu jara waajal moo tax soxna Momy kebe da koy waajal bu baax a baax ci diirub at mi yëpp di ci def lum mën ak lum mënul ngir teral gan yi nga xam ne dañuy ñëw ci bisub màggal gi lépp loo xam ne bis bi laaj na ko rek ci wàllum bernde da koy waajal ba mu doy tey it lépp yemb na ci kër gi li dale ci ginaar ba ci giléem ak mbooleem xeetu boisson yeeg ya aajow ngir teral ganu Cheikh Ahmadou yi jàng xasida ak bernde diggante ci semaine bii lépp luy xeeti bernde li ko tàmbalee ci pitax ba ci gileem wàcce nañ ko ci ëtt bi lépp loo xamante ni bii suñ borom daganal na ab jullit di ko jëfandikoo di ko naan wàcce nañ ko ci biir kër gi loolu nag da koo def ngir jaami yàlla yi loolu nag da koo def ngir taalibe yi Serigne Bamba yi ak képp koo xamante ni bëgg ngaa bég ci bis bi boo wàccee ci kër gi di nga bég. bernde yi nag dafa laaj ñu koy def ci ay jumtukaay yu mucc ayib moo tax soxna Momy Kébé ya ca gën la indi ngir di ci def bernde yi. waaye lépp loo xam ne da koy def ci màggal gi du yem rek ci biir kër gi ndax da koy ànd ak mbooleem dëkkandoo yi nga xam ne ñoom la nekkal ci quartier bi. noonu la koy defee ci koñ bi ndax dañuy du ma lekk mukk wala mën naan mukk samay dëkkandoo dëkkandoo yi ak soppe yi kenn ku nekk yëg na li la soxna Momy Kébé servir soppe yi ak taalibe yi kenn ku nekk yëg nga li la soxna Momy Kébé servir waaye nag rawatina njaboot gi nga xam ne mooy njabootu borom Touba gi fenn fu nekk mu am fu wàcc waay kër gu nekk mu am fa wàcc waay njabootu Serigne Touba fonk ko lool sëti Serigne Touba yi fonk ko lool waaye kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi te nga xamante ni maanaam liggéeyal yàlla ak yonente bi ak seex Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñor na leen ñu fonk ko lool jàpp ko lool téye ko lool amul xaar ma yàlla kenn amul xaaj ak seen kenn soxna moom mi daal lan la bëgg mooy taalibe Serigne Touba la bëgg. sant la yàlla Cheikh Ahmadou bàmba ci bisam bi nga xam ni lépp lu muy sàkku ci suñu borom ci la ko amee woon moo tax soxna moomi Kébé jëf ju baax ji nga xam ne mësta dañ di ko def da koy gën a yokku ndax mbégte yëmut rek ci màggal gi ndax soxna moomi ni nga xam ni noonu la baaxoo di def doon taalibeb sëriñ Bamba doon taalibeb Serigne Saliou yaakaarul ku dul Serigne Touba waaye nag ci biir loolu itam mu jàpp ne moom mission moom mooy fexe ba doomu aadama bu nekk maanaam la mu man ak la mu sañ ak la mu attan mu di la ci dimbali te jëm yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba tax. ak itam fexe ba mboolem ñi nga xam ne ñoom la dëkkal mboolem ñi nga xam ne ñoom la xam ak mboolem ku xam koo xamante ni bëgg nga koo ko jariñu nga ŋàbb ci loxoom indi ko ci kanam soxna si mu dimbali ko jàppale ko ci bisub Serigne Touba bi ndax koo xam ne jàppale taalibe yi Serigne Touba rek ngay def rawatina nag ci bis bii nga xamante ni bii Serigne bi neen nañ ko ci santle boromam. nii la ñu fas yéenee dundalee màggal Touba édition 2021 bi fii ci kër ajaratu Momy Kébé muy sant bernde ak jaamu yàlla lépp rek ngir santale yàlla Cheikh Ahmadou Bamba ci bisam bu tedd bi fajaani bima bihi fajaana baaqi mumitun wal baqaa'u jaana فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا